fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu wa sallam bis bi ko yàlla indee kenn mënu koo bañ. war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma tomb bi ñuy fàttalante ci jullit yi dafa ñëw ci waxtoom muy li lislaam indi. bëgg cee saafara jafe-jafe àdduna bi ci jamono joo xam ne am na ñeneen ñu joxañ lislaam banaan lislaam daa am jafe-jafe moom déedéet lislaam amul jafe-jafe ña jàkkaarloog lislaam ñoom ñoo am jafe-jafe ana lu lislaam indi woon ngir saafara ci saafara saafara ci jafe-jafe jamono ji tax ñu naan lislaam daa am jafe-jafe saafara sa mooy yàlla moo nu ko moo nu ko wax moom mi gën a xam mu ne fattaqullaha wa aslihu data baynikum maanaa na ngeen defaroo koo xam loo bokk ak moom rek lu mu sori sori lu xeet yi wuute wuute lu làkk ya wax ja wuute wuute gannaaw xam nga ne nit la am ngeen lu ngeen bokk waaye rawati nag ngeen bokk pas-pasu diine l'islam su boobaa daa ne foofa rek nga ne fii waaye mi ngi mel ne génn jëmm ju am métier boo ko wooyee borom métier mu wuyu la boo ko wooyee jëmmi waa ji mu wuyu la moo tax mbokkoo rek mooy dox diggante nit ñi jàmm am am na lo xamne da niru ak bok te fek ak mbok rek la ak mbokk ak bok du benn amna itam lo xamne ne dafa niro ko bok te fek lengo dong la lengo nak wolof neena da neex waye ko baye mu demee ko gam lolou ñoomte la maanaam lëngu mo su xasse ba am ci la doole di amee nangu mooy doole waaye ku nekk bu demee ko waggam dana bari loo xam ne dana ko soxla te du xam fu mu am wala ku ko am yàlla nañu ci yàlla musal ana lu lislaam fu lislaam joxañ ba ne li ëpp ci li ko taxoon a ñëw ba tax mu war a dund ba faw mooy jullit bu nekk jàppe mbokkum jullitam boppam léeg-léeg sax mu dem ba mbokkum jullitam war koo gënal jëmmi boppam ci loolu nag tënkuwut ci ab xew-xew day am rek mu war leen koo boole wala jamono dikk rek mu war leen koo boole moo tax bokk yi kuy tënku ci jamono rek lu jamono ëndi nga ànd ak moom doo nekk fenn ndax jamono toogut waxuñu dox sax waaye day daw kon kenn ku ci nekk na fexe ba pas-pasub diineem ba mu sax fa ak lu jamono mën a indi ak lu lu soppiku soppiku bari ban moo ne mbokku lislaam googu wuuteeg ay xeet kii daa ñuul kii daa mboq kii daa weex xañu leen ko moo ne kii mi ngi dëkk ci biir continent kee dëkk ci benn benn continent wuutalewu leen ci ngeen war koo bokk waaye ni lislaam def mooy day seeti ñu gën a sori xëcc leen bañ gën a jege ña jàppoon ñoom dañoo sori woon moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon gënante ci sama biir xeet wi nekkul ci kii daa weex wala kii daa ñuul waaye ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla kon su fekkee ñépp dañoo dox jëm ci gën a ragal yàlla bu kenn ku dokk ñaaram ñaar dem ñaari jéego tas ak sa morom yàlla ni ko yàlla jàppandal mbokkoo googu nag di mbokkuk diine léeg-léeg mu wuutu bokkuk askan ndax innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum innamal muminuuna ixwatun daal yam ca la muy tekki mooy ku jóge ci jeneen diine ñëw ci lislaam tàggoo naa ki bokkam la mu bokkaloon askan mooy aw sant wala mu bokk ak ñoom meen muy néegum ndey loolu ni muy demee mooy su faatoo ca fekk mi ngi doon ab jullit ñoo ña doon leneen alalam nga duñ ko fab di ko wéete ñooña waaye way juróom yooyee itam suñ faatoo duñ ko jëlee di ko di ko ko yëg ñoom bu leen neexee ñu def ko ko ñu indil ko seen alal waaye moom mi di jullit moom doon na duñ doon alalam moom ana ñu koy doon duñ bokk aw mën nañoo bañ a bokk askan mën nañoo bañ a bokk ab der waaye lay tax ñu jël alalam wala mu jël ci alalu jullit yi mooy pas-pasu gëm yàlla bi ñu bokk moo leen def ak bokk innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum moo tax ab jullit Lum sore sore ak ngorom ja su fekke ma ngay dund bokku ga luñ nek bu nekk ci jamm dafa wara ñaan jamm ja gëna sax bu ñu nekk ci safaan da ko wara yalu dis ni ñom ngir mu mëna wayaf ndax lu ñepp bokku yanu lum dis dis man na wayaf du yan bi nga xamne dañ ko ñun cib yan moy ñu yëkëti ko tek ci sa kaw bop waye moy xatal jullit bi fa mu dëkk wala ñu teg ko fa ay nattu wala ñu di ko joxañ saa su nekk su boobaa ñun jullit yëpp dañoo war a taxaw geesu ko xamal ko ne ko fi nga nekk wéetoo fi moo tax euh, bu ñu ko dendalee ak li waa jamono di bokk dañuy xam ne lislaam moo yore saafaras jafe-jafe yi àdduna jëpp bokk yonent bi sallallahu alayhi wa joxe na ci misaal ba gaañu jógee makka <clears throat> ñii ànd ak moom ñii fekk ko fa indaali dara ñii yàlla ma ne woon na leen gan lool nu nangoo bàyyi lañ yor lépp dem ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu lu def daa jàpp ci loxob kenn ci ñu jógee makka ci misaal bu jàppee ci loxob ku jógee makka jàpp ci loxob ku nekk ma madina ne diw kii mooy sa mbokk am na si ñoo xam ne nañ ko dundee dem nañ ba àgg ci bëgg a séddoo seeni soxna am na ñu xalaat loolu ne kala ñu ci booleel tam jógee Makka kaay ñu dem sama kër nga xool ca sama waa kër ku la ca gënal ma bàyyi ko nga jël ko bokk yi nag kooku alal yi poño poñoor mi taxul ñuy wax kon kon boobu loola la ab julit def ak mbokum julitam ci mbokku l'islam ki mbok pas-pas bi dem ba nango seddo sa waka mo la ne suñ bii nekkoon njaareem te mujjoon nekk tubaa am na ci ay ben ben yo xamne da nan la xam nga diwa nga ne xamagumako lola daf ci don roy doxin yonente bi sallallahu alaihi wasallam mune dem mune mat nako mat na jema xam gis ka des nako ndax xam nga xamante nga diw te ñoña man nañu bañ bokku rew réew muñ ci biir réew mi dañ ko séddale woon mën nañoo mën a bañ a bokk aw askan mën nañoo bañ a bokk sax giir waaye day jàpp ci loxo kii teg ci loxo kii ne yéen ñaar ñii yéenay bokk yéen di ay bokk bis ni tey li ko tàmbalee tey am na si ñum wax ne leen ñaan na yàlla su ëllëgee bu ñu demee ba aljanna it bu ki ka fa njëkk bu sàkkatee kii du bañ kii bañ a sàkkat da ko misaal ci dundinu àdduna ki la jëkk sanc sàkkat miire ñeenti miiram yëpp wet ga kay sanc si wet gi muy féete du miira wet googu am na ñu mboolee noonu te am na ci kuñ xam koo xam ne ba mu faatoo moom noonu la yàlla dendalee seen barab ya te rawante nañ ab diir te ña ko fa denc taamuwuñ foofa dañuy tëye tëye ba àgg fa rek bañ dencee ba noppi lañ gis ne ndekete yow ko suñu tubaab boole loon moo nekk nii kon boobu ab jurit foofu la war di dox waaye nag bokk yi ana bokk adduna gi anam nañ ko nose mooy lëngoo rek lay lax waaye du du ànd du ak bokk bokk yi koo xam ne boo ànd ak moom euh, lépp lu def nga ne noonu la waaye bis bu ngeen tàggoo lu mu def nga ne du na du na ñu ne yaa fi waxoon li démb di nga ne boo démb démb tay tay la bokk yi nag koo xam ne doo geesu sa gannaaw man ngay réew ci digënté bi te do xam fa nga jëgé won do xam fa nga jëm ndax ku xamul fam ku xamul fam jóge woon mën naa bañ a xam fam jëm nit ki bu ko wóor boo xam penku la jógee te sow la bëggoon dem xamu fi penku saw tuta penku man na leer ba xam penku saw wala jëm wala déet kon bok li tuddu ak bok tuddu ak and moy li l'islam andi tuddu ko and tuddu ko ak bok dem ba loo yor nga ko seddo ak ñëpp dem ba luy metti nit ki nga ne ko yàlla na ma dal te teggiku la loolu nag bokk yi buñ ne yonent bi lam ca mënoon wala Sëriñ Tuubaa lam ca mënoon kenn mënu ko ca déedéet am na koo xam ne ah, Abdullah ibn Omar la tudd radiallahu anhuma daa taseeg genn góor muy dox moom Abdullah ibn Omar mi nga war aw warax kaalawu kaala bu jëkk tase góor gi xàmmee ko daal di wàcc dindi kaale ko jox ko góor ga wàcc warax wam yoroon warloo ca góor ga abdullah ibnu dinar ne ko waaw kii mooy kan ba def ni nga def mu ne kii dafa jaxase woon ak sama wajur dañoo jaxasoo woon lool te sama wajur dégg naa ci moom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na inna abarral birri sillatul waladi ahla wuddi abi wala إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبي loolu la Sëriñ Tuubaa tontu woon bañ ko ne da nga ñëw ñu dem ca buur nga jale ko sa baay ba noppi ni samp la fa mom mu ne jale ji gi de nangou naa ndax inna min abaril birri an yasila arrajulu ahla waddi abi kon bok bok yi rew mo xam dañu ñep ay jullit lañ ndax lim bi ñuy wax nan 95% bañ ko tambalé wax ñii ci jumaa ji ñi ci ñëwoon bëriwuñ te xanaa ci lit lañ bokk xanaa lim bi ëpp na quatre-vingt-quinze te ñu ci bari am nañ ak njaboot am fam yamoon rek la yam maanaam foofu la ak njulit a yam quatre-vingt-quinze yooyu ci la ak njulit yam ñu ñëwaat gannaaw yëpp ay julit loolu mat naa leeral su ko defee kon li xew ba mbokku julit gépp ku ne war cee feeñal ginnaaw xam na ne nii la julit yi di bokke wala ma see ñëw bokk yi bu yàggutoo rek ay at yu néew ci ginnaaw am na xare boo xam am ne boo xam ne daa amoon diggante ñaari réew yu mag yoo xam ne ay jullit lañu mel na réew ma nam doon jàngalee ay soldaaram lan mooy ak bokkoo dëgg dëgg dëgg daf ne leen su ngeen demee ba ñu wër leen ba nga xam ne kenn mënta mucc wala ñi mën nañu mucc bàyyi fa ñeex des bu kenn daw ñu ngeen di def mooy takkale leen seeni mbubb ba ngeen àndandoo dee yéen ñëpp waaye bu ñu rey ñii ñay desam di ko nettali am na ci koo xam ne ak ngërmeem ci gam jamono yi gën a yàgg loola ko ko xañoon daa ànd ak gërëm yay dem ca àll ba ñu jàpp ñañ ànd ñam àndaloon rey leen ba mu ñëwee ci penc ma di nettali ku ne nañ ko reyee ñu ne ko yow sa ngërëm gi jaaxal nañu de ba ñuy rey gërëm foo nekkoon da ngaa ci woon su fekkee da ngaa làqutu ci woon def nga yëfi ngoreet yi kon dañuy teg sa ndombok tànk rek dootoo doon gërëm ni su fekkee nag da nga ko fekkee woon toog di leen xool waxaale wuñ ko kon yow si ña leen sa nga bokk su fekkee da ngaa dawoon it fekkee woon nañ kon wax nga lu du dëgg kon dañ lay folli itam mu mënoo jaar tey fenn bu mucc ci folli gi su fekkee da nga ko nekk li fekkee woo ko waxoo dëgg mënoo koo xam da ngaa dawoon kon loolu xañ na la ak ngër waaye su fekkee it da bokk ci ña. ña làqatu woon waxaale wuñ ko doo as gor war na dee ni ñoom ndax bisub dee du bisub dund bokk yi rasulullahi sallallahu alayhi wa eh, ci xew fan yi yëpp ñëpp dafa am taxawaay boo xam ne dañ caa soxla ay jullit suba muy waru woo xam ne jàpp nañ ne ku jàpp ne bu yonent bu woote woon na nga dem lii mu gën a yomb néewuñ jënd ay gànnaay néewuñ ne nit ñi yuux waaye na ñëpp dem toog ci benn barab ba fees ko dell rek ñëpp xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wéetut am na ak njaboot goo xam ne ku ko laal ku ku ko joxoñ joxoñ moom mu ni su ko tere waaye ku ci jëm nag ci seen kaw ngay jaar door a jàll bokk yi suñu suñ Tuubaa lu tolloog weer ci ginnaaw wooteel nañ ko woote bu xumb am ñu wax ne dee dem dund dem wala boog dund dem dee dem bokk yi nag ab sëriñam moom lañ tooñ na li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasulu lañ fa soxla mooy mbooloo ma dem na fa lamm fees dell gannaaw nag bañ wootee lay sëñ bi dee dem dund dee dund dem dee dem sëriñu sëriñ bi lañu wooteel rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jataay boo xam ne ñépp dañuy ëngëmloo rek toog bokk ñaawloondoo lañ teg ci ab deram ab deram nag bokk yi suñu borom moo ko tooke ku ko ŋaañ rek yàqu ku ko ŋaañ sax dootu des ay bëñ dootu des ay gëñ moo tax wote la bo xamne julit yep lañ fa wo kep ko xamne ne ta dem ndakaaru lañ koy def ku ta dem su waxtu wa jotee li ko tàmbalee fukki waxtu na tok fam tok lu mu néew néew fanweeri minute rek jàppe ko ca ndax waw góor nee nañ jeexalut waar waaye kañ na jamba su ko defé nak lu ko jar looy da koy jar ku nek nga woote ñu diko ko wuy ji fu ne mu jaral len lu nek waye tay ki soxla ki ñu wotal moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi xamne sëñ bu mag bi bind na ne suñu andé di dox bu ko fekko ñu ànd dem ñom ñaar ñi doxa ñun euh suñu yonent bu waree joggi dégg koy jam day teud mom fab ab lexam tek ci dégg yonent bi joggi ci benen lax ba ci tax jàll kon bu kenn amatul aw lay ñewon na yit yàlla la doon wuri la doon wër yàlla joxañ ko yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nekk ku bëgg a dem ci yàlla ñi ngay def ba àgg na ceeg moom lu neex yonent bi neex na ko waaye dem na ba àgg itam lu lu ko neex neex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon boobu fu ñu koy wooteele kenn wërta des kenn nag génnewuñ ci kenn ñeen lépp la dem war te ku munta demit mën naa toog fa mu toog tëj ab liggéeyukaayam toog fanweeri minute yoo xam ne du def dara lu may xalaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ku ko mën it ñi bëgg a dem mën naa am ñoom ca jàppe mooy su mbooloo na ñun ñi bëgg nañoo dem ne leen wutal lu ñu yóbbu su fekkee mënuñoo dem waaye ñàkk caa dem moom ñàkk caa yëngu ci genn anam moom musiba la musiba la bokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa jar la nu nekk nee naa fii léegi ba ñuy gàddaay jógee Makka jëm Madina nit ñi bayina nañ seen commerce bayi seen ngoro tàggoog seen njabot muy soxna ak dom ndax lan fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam legi nak nag laajatuñu yooyu yëpp dugg ci damar ba ag toog fekke ko bu munta am te man man bu yóbbu aw nit ñi dem mën am yonent bee soxna te li wul si wóoru moy bu fi fekkon seigne touba buñ ne rasulullah lañuy wotel fu mu doon dana ca dem ak lu mu ko mën a jaral ndax am na ku doon jaay ak weñ naan kuy jënd ab rasuur rasuur mooy weñ gu wëndeelu googu mu dégg ko ne tëll ne anamu mu ne ko maa ngi nii mu ne ko loo koy wecc ko mu wax ko mu dugg ci biir jox ko ba mat sëkk tur wa tur bi mu tudd bi mu tudd rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon boobu baada li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasul rasul moom mu moom lañ laaw moom lañ tooñ ña ko tooñ seeni maam da daa tooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mosuñ caa am lenn ndam waaye nag nañ xam ne jullit yi nañ toll woon gën nañ koo bari léegi gën nañoo dëgër ay fit gën nañoo takk gën nañoo xam njariñul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom na ñépp dem na ñépp dem ku dul jullit rek nga xam ne bu ne yonent bi noonu kaay da ko fekk fa mu nekk lu yomb la nit ñaa ngi wuy ji ko gën a sori fuuf te woote bañ fay wuy ji bu ñu fa demee mën nañ faa bañ a gis lenn lu laale rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ci yàlla musal bokk yi am na at moo xam ne yàggu dara juróomi at ci ginnaaw am na ñoo xam ne jóge nañ fii ci réew mi réew mi paasal leen ñu dem bokk ci ab dox ab dox dox boo xam ne la ko waraloon ñëpp ko xam ñu ngi leen di xaar ba xam danañ ñëw ci jotaay bi ñu woote ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam su fekkee wuy ji nañ nañ leen def mbokkum julit ba faw bu leen kenn xasati donte xas kenn wurut bu leen kenn ŋàññati donte ŋàññi kenn wurut waaye suñ demee daal nañ xam ne bis ni tey suñ bokk julit lañu yu dëggu suñ demut yónneewul nag nañ tey ci ñoom bàyyi leen ak yàlla te jàpp suñu julit ak suñ pas-pas yaxfirullahu lana wa lakum wa lisairi saa'iri lmuslimina amin lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib julit mënu ko bañ yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ. yoon wu ñuy war jaar ba mën gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko. tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla kenn ku dib bañ. yoon wu ñuy war jaar ba mën gañe Sëñ gisaguma ko